faatoo ñu di leen xamal ne weer wi feeñ na weer wi feeñ na weer wi feeñ na am nañ xubaar yu wér ci feeñ gi weer wi feeñ na weer na ñu di ne weer wi na